sonné dans le vide jëlut loolu nga wax ay kàcc la amul moo tax bu nekk pas crédible non non non non non non non non non non non non gars retirez vos passes retirez je vous ko très bien grave waay très bien. Touré ko may naa leen kii retirez. passe quoi grave je retire. voilà retirez on passe voilà léegi d'accord nga boobu. non mais non mais quand même. non non non non Clédor Clédor mais gars Clédor Clédor mais gars. mais gars. mais gars.